déggoo ci wàllu jàmm gi nga xam na dox na ci diggante Sénégal ak waa MFDC tax na Abdoul mbay di féliciter kilifa réew mi président Macky Sall. balee loolu nañu daal di euh, présenter leen sunu euh, partenaire bii di waa tuuba aviation tourisme di yëngu ci wàllum tourisme durable nekk fii ci Touba boo weesoo boulangerie Baye Modou lay bala nga àgg Touba Mbacké ñoom nag dañuy jaay ay billets d'avion ci bépp compagnie boo bëgg. man na ngaa dem ñu jaay la wala nga toog ñu jë ñu jaay la par en ligne jënd la si biir waaye itam def assurance maanaam jëm ci wàllum ah, assuré oto wala yeneen yu ñu mel location de voiture nga yitti woo oto du wax say soxla ñu mën la ka luyee nga def soxla di delloo si rawati nag ñi nga xam ne dañoo tukki ba bëgg a ñibbisi bëgg oto ba ñibbi seen i kër transfert d'argent ah, jokkalante ci wàllum xaalis moo xal ci biir réew mi ak yëpp ma nga foofee ci Touba Oubiya am na fa sans cambio nga yor euro wala dollar bëgg ko defal CFA daagul dem ca Dubai agence de tourisme moo gën a wóor moo ëpp sutura wala sax nga yor CFA bëgg koo def euro wala dollar ñoom itam loolu itam boo fa demee dañ ciy am jàppandi. réservation d'hôtel nga bëgg hôtel dalluwaay itam dañ ciy yëngu ñoom waa Touba aviation tourisme seen numéro de téléphone 33 975 20 55 gmail point kon Abdoul Mbaye moom daal moo ngay sant président Macky maanaam ma ngi koy félicité ginnaaw ñeent fukki at yoo xam ne mbirum rébellion am na ca Casamance état di Sénégal ak le comité provisoire des alliés politiques et combattants du MFDC signé nañ benn accord de paix boo xam ne la ñuy la muy wund mooy dépôt maanaam joxe armes yi ñu daan jël ñu daa koy teg suuf daal di koy bàyyi waaye itam fas yéenee doxal jàmm déggoo bu ni mel nag ñi ngi ko ñi ngi ko signé alxames bii ñu génn ñeenti fan ci weeru août ca Bissau ah réewum ki nga xam ne nag moo fi nekkoon premier ministre di Abdoul Mbaye jaare ko ci benn tweet ma ngay rafetlu accord bi nga xam ne am na ki ñaari parti yi waaye itam di am yaakaar na daal jàmm dana ñëw benn yoon far maanaam un retour définitif de la paix dans le sud du pays maanaam daal jàmm yoo xam ne day ñëw far ñëw ca Casamance moo tax mu wax ne daal amut loo xam ne daal mu ëpp jàmm ba tax na nee daal moom signature accord bi nga xam ne am na ca Bissau mu nekk accord Bissau 2022 nekk na daal mbir yu am solo yi nga xam ne gouvernance bu président Macky Sall réussir nañ ko ba tax daal nee na moom am Abdoul Mbaye maa ngi félicité armée bu Sénégal waaye itam di félicité ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbootaay gii di MFDC waaye itam di félicité ki nga xam ne nag mooy kilifa réew mi di président de la république Macky Sall waaye itam nee na du fàtte mukk nag yeneen acteurs yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ginnaaw di góorgóorlu ba mbir mii daal di am loolu nag mi ngi ko jaare ci benn tweet boo xam ne président acte di premier euh, euh, ministre Abdoul Mbaye def na ko di jaajëfal président Macky Sall ci jàmm accord de paix bi nga xam ne dox na ci diggante waa MFDC ak réewum Sénégal état du Sénégal.